ak junni umra dina am yoolub ku saraxe junni dërëm te des na ko bindal itam jaamu yàlla ak juróom-ñaar fukki at mbokk yi ku ci bëgg yeneen i leeral nga dellu ci Xurratu Ayni bu Sëriñ Suhaybu bu Mbàkke page 141